c'est pas une identité. c'est pas une nationalité non c'est identité c'est pas une nationalité. sunu nekkul ci Sénégal quoi day liggéey rek ñu koy fay. on n'a pas d'autre option d'ailleurs. amul yeneen yeneen ñeenti société yoo xam ne ñoo ñooy ñooy leen di concurrencer boo leen joxul courant ku ñu jox courant yéen a feneen di joxe courant bi dafa am feneen. mais am na temps yoo xam ah non non Aziz dafa ndànk rek. parce que li ngay wax nii ñun du loolu sénégalais bi du loolu moo ko intéressé. man yokk. mën nga ko nangu ci dara mais façon yokk yi ñuy yokk yi dañuy jógee du kit au double cest à que fii dara buy yokk Sénégal et pour moi c'est un manque de de respect total parce que lu benn ni Sénélec wala entreprise bu mag bu toll noonu warul sukkandiku sur jàkkaarloo au sur yoon wi de RFM pour communiquer da ngeen war a communiquer ak sénégalais yi au jour le jour tu as un sénégalais qui cent mille francs kooku cent mille francs yi muy gañe dafa bëgg teel a xam anticiper si nan lay mën a def ba nga xam ne courant bi du ko fekk pour qu'il change ses habitudes tubaab bi lan la ñuy rawee dañuy gis benn crise ñëw wala dara ñu changer seen ay dëfin lan lay tëj fii pour mën a def fële le père de famille amu ñun ñi mën nañu kaas mën nañu dara lu mu metti metti ñu dem fay parce que je le vis sama soxna mi ngi may seetaan fan yëpp damay kaas xam nga à la limite damay may fàttali pas Ilimandour mi ngi may seetaan sama papa bu mu ñu nekkee xale da nga doon wax paa bi dafa leen dafa soxor sax oh, te on ne parle pas de climatiseur man je suis un fils de d'ouvrier ñun amuñu woon climatiseur suñu kër bi ñu nekkee xale xalaatoo ko ventilateur sax peut maire bi moo koy am làmp laay wax dafa demoon ba intégré ko si ñun nga naan bi lampe boo fayee taalee làmp kii ko mu ñëw dal sa kaw lu ne muy fës di nga naan paa bi wérul ndekete paa bi lii la doon gis donc ñun on ne parle pas de nous mais aujourd'hui li gën a metti ci suñ entreprise yi nga xam ne sénégalais dañ ciy yaakaar ci seen quotidien làmp ak leeraay ak électricité dafa bokk loo xam ne mënul ñàkk du dara mënul ñàkk nag au jour jour il faut ngeen accompagner nit ñi di leen wax li mën a nekk ak lu mënul nekk da ngeen di xaar ba crise am ba gars yi commencé coow ngeen def benn ñaari plateau ne communique vous ne communiquez pas loolu benn beneen bi mooy que façon yokk yi ngeen di yokk du yokk dafa ëpp nit ñi duñ ko mën a attan tu vas payer tu payes cinquante mille tu te retrouves à cent mille ta vie change dama koy wax ñun ñii ñëpp dañuy wax nii rek mais le sénégalais lambda la bii gagné cent mille francs xam na ni yokk bi ngeen ko yokk attanu ko te doo leen ko wax dara te du ci mën dara amul benn recours mm-hmm. boo def def la ñu dindi compteur bi yóbbu nan waxante dëgg donc c' pas du question seen lekkuwaay et tout ça il faut que ngeen accompagner nit yi te seen yokk bi il faut mu mesurer mais Sénégal ni ñuy yokkee du cinq pour cent du 10 pour cent dañ lay yokkal 30 pour cent sur ta facture te duñ la wax dara mais évidemment nit yi dañuy kaas parce que seen responsabilité yokk dëkku tubaab bi sañoo yokk ay ay 20 30 pour cent non benn 2 pour cent sax coow indi mais li da ngeen par rapport ak ñoom ñu am par rapport ak la facture initiale. si deux trois mois te doo leen wax nit ñi dara yokk nag dafa am fu mu yem te yokk bi ñuy yokk Sénégal si lépp presque arnaque la parce que du ñu wax nit ñi yokk dafa am fu mu war a yem te loolu Sénégal dafa war a imposé gars yi pour que ñu ñu quand même respecté ñu ba nga xam ni bu ñuy jënd benn affaire cent franc munoo jékki-jékki du jour au lendemain mu nekk cent soixante franc bu nekkee cent cinq franc cent dix franc sax yokk na mais cent soixante lay egg te doo wax loolu du yokk. te loolu c'est un grand problème alors question